76 98 76 532 64 17 Ndiaye Global Business mbégte kese la ñu fekk la ñu gis ne waaw fii moom comme toujours rek ni lañ fi nekkee instant yii nii Franc moo fi gën a jegele combat moom ay ñoom Talba ñoom Gora ak ñoom Dame Sène loolu moo tax ni lañ ko defee chaque fois ñëw fii jàppalante kenn ko am combat rek ñëpp bu jóg ñëw. def suñu bopp benn jàppale incha allah ba yàlla may ñu ndam quoi loolu moo tax nga fekk ñu fi. Euh, barki démb dégg na ki nga xamante ne moom mooy booy Niang mu joxe exemple ñëw ci li nga xamante ne moom mooy 100 pour cent tey boo déggee loolu noonu waaw dañ koy rafetlu xam nga nit moom bu ñu defee lu rafet ba nit dañuy jël exemple rek sant yàlla quoi te dëgg yàlla ñu mënta euh, ñaawal dañuy rafetal daal xam nga ñun parcelle tey du ñu bëri suñu biir bëri si bari bëri du ñu bëri seen biir. ba tax na ñu def benn bloc di jàppalante kenn bu amee combat ñëpp tey boo fi ñëwee fii xamoo rek énergie xamoo jàmbaar wrestling xamoo yeneen écurie yëpp yëpp dañ nekk benn ñëw di jàppalante daal incha allah ba yàlla may ñu dem di nekk suñu kanam bu soobee yàlla. Uh-huh. Franc Sokh bari na ah, wax gis nañ ñoom ñaar ay xale lañ. ak fi ñu toll combat boobu noonu nan nga ko gisee ak nan di yabee ki xam moom mooy ah, Franc. waaye Franc comme ni ñu ko daan yabee rek macha allah xale la xam nga mu ngi liggéey comme ni ngeen ko fekkee fii génnoon na tukki xam nga wax dëgg yàlla liggéey lu dal ñëw di yeggali fii entraînement yi allah. lamb ji coow li bari na noonu la lamb baaxoo nag wax dëgg yàlla mais li may wax sànq rek laay wax gëm naa ne dix combats Franc daan Sokh dix fois. non non loolu laa gëm wallaay laa loolu laa gëm lamb na ak coow ñu baaxoo moom coow li na bëri bëri waaye li naan xaw ma lan niñ ko olof di waxee sax lan jëm waaw ku ñëw ci pind ba nga yem wax na lépp mais tey état physique am gisee ndax gis ñëpp dañoo jël lépp jox ko ki nga xamante ne moom lan lay def ci mbër waaw non wax dëgg yàlla sas la ci moom te liñ ko sas it moom xam na tey lamb ji fu mu toll ci moom wax dëgg yàlla ñun yéene la ñu am jël suñu force ak suñu lépp def ci mais moom moo gën a xam fu ko làmb ji toll te comme ni ma la wax rek gëm naa ne incha allah coow lay bëri rek mais incha allah ndam li fii la ñëw bu soobee yàlla. le fait que mu ne ko 30 secondes ñii ne mën naa nekk ñoo mënul nekk Modou est-ce que gëm na 30 secondes. ay sax mën naa nekk incha allah hmm. waaye bu soobee yàlla. kon nga sa plan. bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla waaye. Ah, Modou alhamdulilah ça va comme ni ñu fekkee nii rek instant yi commencé nañ ñoo ngi kii ndànk-ndànk incha allah di ñaan yàlla rek bu gën wér ba ñu ñëwaat ci affaire yi 100 pour cent incha allah. Mm-hmm. sa combat am ñii ne moom dina ko def parce que luñ naan ku xaw ma ku lok avance de pomme comme lekk na avance bu nit lekk naa ko ku kulli al moom dina am dañu ñaan yàlla rek mooy ñu talak rek incha allah ba ñu yegg ci quoi incha allah. Euh, loolu moom kenn du ko rafetlu violence kenn du ko rafetlu ci am réew. que Sénégal bu ñuy wax Sénégal dëgg naan réew teranga la Sénégal bu dal moo tax mooy am na yenn violence yoo xam ne moom kenn xamu ko Sénégal te wax dëgg yàlla. dafa ñaaw trop dafa ñaaw trop chaque jour yaa ngi dégg yaa ngi dégg ay rayante fii wala yooyu te loolu lu mën a lu mën a ñàkk la xam nga di waxaat daal état bi xam nga mu gën a jël matuwaayam yokk sécurité bi nit ñi tamit xam nga xam ni ñëpp ay ay bakkan la ñu yor te bakkan dafa foor xam nga ñu toog liggéey li nga am nga yem ci xam nga yàlla mooy wërsëgal lu la yàlla jox mu tuuti bu bari yem ci gëm yàlla te dem liggéey yi àdduna nit buy liggéey dara jomb ko ci live am bañ a yàqamti parce que gëm naa ne yooyu yëpp yàqamti sa wërsëg la rek ay agression ay def yi nga xam ne nag suul noonu la yëpp pour man yàqamti wërsëg la te yàlla moom bu mu bind moom da koy jox wërsëgam ba tax na yu bari jaru yàqamti nañu indiwaat xel yi xam na xam ni ku fi gaañ nit sa mag nga gaañ sa rak nga gaañ wala sa pap wala sa yaay ba tax na xamoo nañu delloowaat xel yi bu baax a baax xamoo Sénégal jàmm juñ fi xam bañ koy tuddee réew taranga mu dolli si waat ba ñëpp nekk ci jàmm incha allah di wax état bi tamit gën a jël matuwaayam pour sécurité réew mi incha allah tension Pikine ak Parcelles lan moo tax saa ngeen di bëri rek tension bi day bëri quoi lamb ji mu mel ni mu mel ni leneen lay doon quoi mu mel ni tension bi quoi. waaw mais comme ni ma lay wax rek lamb moom mu baaxoon noonu te c'est vrai Franc ak Sokh wax dëgg yàlla comme ñaari mbër yu yàgg soxlante lañ ba pare xam nga bokk xaw a bokk génération. day am soog moo ko sax njëkk a bëre. moo tax lamb ji bëri coow te làmb loolu la baaxoo daal. incha allah mais du dara duñu ay ennemis duñu ay dara bu ñu bëree après nekkaat ci jaamu daal. mais léegi deux cent pour cent lañ def de xeeb nañ cent pour cent yi. ñoom de ah. ah la mu gis comme ci ñun la ñuy roy kay. <laughs> ñun 100 pour cent la ñoom dañu waroon def 60 wala 80 sax. <laughs> léegi 200 la de. ba tey baax na rek. waaw ko lépp ñëpp nañ. day jàmm rek nekk benn sawi rek waaye. Mm. da yombal jëli ñun ñu ngi ci. aw ñoom luy soog a taxaw la. Mm-hmm. mais ñun ñu ngi ci yàgg na te lu naturel la vraiment xam nga. Mm-hmm. kenn mosul fenn gis ne ñii ñoo ngi toog fi di réunion lu naturel la ñëpp. Mm-hmm. kenn bu amee combat ñëpp ñëw jàppale ko xam nga. mu nekk noonu ba macha allah daal xam laa di ñaan yàlla gën ko dëgëral. mbëri fi am combat yëpp parce que yëpp incha allah yàlla may leen dam mhm. ndam yu sedd ko incha allah franc bi gën a jege la yàlla may ko ndam. combat bi lan la leen jaral parce que ñoom ñaar ñëpp dafa am euh, solo ci seen carrière franc ak mhm. Sokh. Mhm. képp ku daan da ngay génn ku daan dangay xaar. moom ñu dañuy taxaw nii di wax rek mais franc ci boobu moo la gën a gën a gën a xam fu ko làmb ci toll te xam na ko boo gisee moo ngi ci li mu war a nekk mu ngi ci liggéey bi sérieux xam nga jox combat bi àqam dañ koy ñaax rek yàlla may ko talak fekk incha allah wala 19 yàlla may ko ndam bu sedd guy. Fatma fii ñu jeexalee moom. Boy Niang daf ne dalee na naw ci seen 100 pour cent bi. Mhm. loolu bi nga ko seetaanee en tant que mbër muy sa nawle mbër ban yëg-yëg nga am. waaw li may wax rek. parce que loolu tamit sas la ci parce que nit bu ñu nekkee di def lu rafet. ba nit ñi di leen ci xool leen ci naw di leen ci roy sant yàlla xam di wax tamit waa parce ñu gën a jàpp que amuñu droit def erreur comme ay nit a ngi xool ci ñun bay jël exemple ci ñun def ay cent pour cent ki deux cent pour cent sant yàlla ñu gën a jàppalante incha allah xam nga may bañ a may saytaane benn mu dugg suñu biir incha allah ba suñuy mébét incha allah yàlla may ñu ko rendez-vous fan bi ak fii incha allah fan si loo leen di wax rendez-vous waaw le 19 incha dem Pikine incha allah jëli ndam li indiwaat ko incha allahu taala bu soobee yàlla incha allah. merci jërëjëf yaay mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fooy fanaan mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fooy fanaan